kon ça veut dire que de métti na mais alhamdulilah l'essentiel que ni suñu famille yi nga xam ni gars yi ñu ngi yónnee foofu xaalis ñu ngi euh, ñu ngi leen di mettre xam nga dans dans bon condition ñoom ñu fete Korité feteel ñu aussi tamit nga xam ni moom moo di Korité bi. bu loolu weesoo on va parler benn affaire boo xam ni jouru Korité la xew euh, muy Sadio Mané ak club si vous vous rappelez bien Sadio Mané amoon na benn genre bourde boo xam bi mooy deuxième bourde Sadio boo defoon na contre Salah. Salah daf ko waroon jox benn passe mais on a vu que ni passe ko mu raté bal bi Sadio Mané mer bi ñu ko génnee mu def benn genre tabac polémique si moom moo di pressu euh, Angleterre bi presse mondiale ñëpp doon wax si li nga di problème boobu noonu lan moo tax mu amoon buzz mooy ñaari joueurs yi nga xam ne ñoom ñoo doon guider équipe bi je peux dire que trois parce que Sadio Mané la woon Firmino ak Salah ñaar ñooñ ñoo amoon problème. jamono jooju noonu ñu gisoon benn genre neer yu tendu foofu noonu gisoon benn genre séparation si ñoom ñaar ba je crois que ni ba léegi sax mu ngi continuer seulement que ni ñu ngi koy jéem nëbb mais ba léegi des na moo tax l'arrivée de Yota dafa nekk benn affaire boo xam ni euh, pour cela daf koy arranger il faut qu'on que amagul problème at kooku noonu wala pour maanaam daf koy comme ñoom ñaar ñëpp dañuy kan la ñuy téye pour mën a continuer football quoi ñoom loolu la ñuy xool il faut savoir que ni Sadio Mané man personnellement je crois que ni amul baisse de forme comme gars yi ba ni ñu ko jëppee parce que football ñaari affaire la soit physiquement doxo mais surtout aussi tamit psychologiquement parce que psychologie dafa bokk si li nga xam ne moom moo di euh, joueur wala nit ki looy mënti liggéey si tu t'es pas bien psychologiquement tu peux pas exceller munoo dem daa am ay bloc yoo xam da ngay def ba si youtubeurs yi sax dañuy am li nga xam moom moo di problème psychologique pour man Sadio Mané problème psychologique la am ay frustration la surtout moment bi nga xam ni depuis Salzbourg ba jamono ñu toll ni Sadio Mané bi mooy baisse de forme bi nga xam ni moom moo ëpp mooy maanaam performant wul comme nu mu ko mele woon te dafa am benn affaire boo xam ne il faut il faut saluer quoi Sadio Mané dafa nekk benn joueur boo xam ni bi mu dajee ak Liverpool euh, def na benn affaire boo xam ni rare ay joueur def ko mooy maanaam nga ñëw dajeek benn équipe nga dóor ko 3-0 ñu reconnaître la foofu ñu xàmmee la foofu ñu récupérer la indi la si équipe boobu doonu nga def plus. li nga xam ni moom nga defoon bi ngay dajeeg équipe boobu noonu euh, avec des des des des des performances yoo xam ni waaye maara day taane macha allah avec des des des buts yoo xam ni Sadio Mané dugal na ko nekk euh, Capo Carneiro meilleur buteur beaucoup de titres individuels yoo xam Sadio Mané am na ko mais y a beaucoup de yoo xam ne aussi dañ ko ko dañ ko ko mu nekk benn xeex boo xam ni Sadio Mané rencontre rencontré na ko ak staffu Liverpool mais maanaam des fois. da gis euh, moment bi nga xam Sadio Mané moom wala moom titre bi ñu jël ko teg Van Dijk si kawam parce que ñun ñëpp xam nañ li fi nekk benn genre ségrégation bu fa amoon euh, racial sax laa ko mën a wooy ñu am beneen problème aussi tamit mooy le moment où Anderson mi nga xam ni bon on peut pas dire que ni Anderson était plus crucial que Sadio Mané am na benn euh, titre individuel bu ñu ko jox ça devait aller à Sadio xam nga si aussi tamit li nga xam moom moo di ballon d'or bi nous tous que xam nañ ni cette année là Sadio moo mérité ballon d'or même y a des qui vont Messi y a des qui vont dire mais au Van Dijk mais Sadio Mané moo ko gën a mérité joxuñu ko ko. en certain moment frustration yu bëri yooyu noonu nga xam ne jot na am si Liverpool et sous-entendu que ne amoon na benn genre divorce boo xam ne dafa waroon am Sadio Mané dafa waroon quitter Liverpool dem Real Madrid y avait beaucoup de spéculation yoo ba pare nga ñëw def benn saison boo xam ni mooy sa pire saison alors la frustration mën na am ñëpp nag ñu ngi jox euh, tort Sadio Mané parce que instant yi nii li nga xam moom moo di presse bi muy muy muy pointer le doigt sur Sadio Mané dafa disrespect manager bi mooy Klopp dafa manquer de respect dafa ñii dafa ñaa dafa patate patata c'est facile parce que loolu yëpp gisoon nañ ko fi chaque fois boo amee benn ni ko ñuul c'est facile ñu attaquer bu fekkoon tubaab moo ko def coow li du bëree nii mooy maanaam du nekk benn affaire boo xam ne dañuy naan kooku moo di suspect surtout bu nekkee koo xam ne dafa performant wala bu nekkee koo xam ne si club bi il a beaucoup donné parce que quoi qu'on puisse dire Liverpool mënul remercier Sadio parce que xaw ma ñaata at a ngi nii jëluñu woon Ligue des Champions si présence Sadio Mané ak jeu Sadio Mané yóbbu na leen c' était pas nag y' a les autres y' a Salah mais on si li nga xam moom moo di euh, meilleur quatre wala meilleur ñoom ñooy mondial. est-ce que comment fi ma waxee léegi nag loolu il faut que Sadio Mané am apport africain apport africain boo xam ne c'est impossible parce que les africains ne s'entraident pas maanaam dina am ay yoo xam dañ a aussi des sénégalais yoo xam sax dañuy dem critiquer il xam ni dañ ko waroon am mooy maanaam dañ ko waroon faire sentir que ni ñun ñu ngi ci ginnaaw mais est-ce que ñun ñu ngi ci ginnaaw Sadio Mané parce que xam la moo tax ma loolu bu fekkee da nga perte confiance ci entraîneur bi nga perte confiance moo euh, coéquipier yi mooy maanaam le rapport ne va plus avec tout le monde il faut nga am benn genre euh, apport boo xam ni supporters yi moom la ñuy jox te doomu gars yi nag il faut savoir que Sadio Mané Liverpool dafa am pression mais surtout aussi tamit Sénégal dafa am pression léegi ñaari pression parce que Sadio Mané c'est le seul sénégalais boo xam moo ëpp pression ci joueurs yi leaders yi fi jaar yëpp du El du Mamadou Niang du du du du Fadiga du waree ba képp koo xam jaar nga Sénégal ki nga xam ni moom moo di Sadio Mané moom moo la ëpp pression. mais pas seulement si li nga xam moom moo di tanière nationale mais aussi tamit si nga xam moom moo di club bi parce que foofu dafa am benn genre leadership boo xam dafa manqué nekkul leader Mané nekkul leader Van Dijk nekkul leader Firmino nekkul leader amul ku nekk leader le leader c'est Klopp le leader c'est Klopp kon tey jii boo dugalee Sadio Mané soixante-quinzième minute là où <laughs> Liverpool def ay série de de forme boo xam ni beaucoup de défaites wala yi nga xam moom moo di ay euh, ay nul ba pare nga ñëw dugal Sadio Mané. dernière minute match boobu noonu Liverpool gagné c' est comme si Sadio Mané mën na toog mu ne mais kon est ce que du man maay pertuloo li nga xam moom moo di Liverpool mën na ko jox li nga xam moom moo benn baisse de confiance gis nañ ko si Eto'o ak Guardiola gis nañ ko fi Spalletti teg Totti gis nañ ko fi si Ibrahimovic bu mu demee Barcelone gis nañ ko si balote ak Mancini bu mu demee Manchester dafa am joueur mënoo exceller chaque fois année bii du année il doit savoir maintenant la fan la erreur bi nekk lan la war a def. pour mën a jaay li nga xam ni moom moo de continuer carrière am nekkaat si li nga xam moom moo di tout le top ñaari solution la am soit il part si beneen équipe boo xam ni dinañ ko mën a jox privilège boobu noonu mu nekk leader ñu ñu ñu traite ko bien soit mu ñëw foofu noonu one club même bu fekkee da ngay dugal deuxième mi-temps bu desee trois minutes mu dugg foofu essayer trois minutes yooyu noonu nekk ni koo xam ne day décisif parce que tout récemment gis nañ ni dafa manqué li nga xam moo di décision devant la portée dafa am loo xam ne dafay important li nga liggéeyoon yëpp football lu boo liggéeyoon yëpp nekk mais champion di xaw lan ak lan ak lan nga ñëw benn saison nga nëb rek gars yi dañ lay commencé taxé te pressu Espagne ak pressu Angleterre ñoo gën a yées pour yàq joueur ak ñoo gaaw a yàq joueur ak ñoo gaaw baisse jour joueur ak ñoo gaaw attaqué joueur gis nañ fi Benzema pressu fële gis nañ fi Zidane gis nañ fi gis nañ fi Cassano bu mu fa demee. Angleterre tam c'est la même chose gis nañ fi Lukaku gis nañ fi ku nekk c'est le football léegi nag en tant que joueur yooyu am benn genre maturité yooyu am benn genre euh, courage boo xam ne moom ngay dawal pour nga mën a avancer si man je suis d'accord si geste bi nga xam ne Sadio Mane def na ko man je suis d'accord parce que après tant d'années de frustration je crois que nit ki da ngay libéré wu boo libéré wul da ngay exploser et c'est pas bien nee na y nañ jàpp ni y mais man je crois que ni Sadio Mané il est temps il est temps bu fekkee bëgg nga jël sa carrière en main si tu peux tu veux pas aller dans l'oubli soit nga dem wuti beneen club boo xam dinañ la jox privilège soit boo duggee nga récupérer sa place parce que sinon chaque année Klopp da lay indil benn joueur maintenant gis nañ ni Yota moom mooy ki nga xam moom moo di joueur préféré wu Klopp en tout cas yi loolu moo nekkoon vidéo bi j'attends vos li nga xam moom moo di bi jox leen ma seen xalaat. waaw euh, wax la ma li nga xam moom moo di seen opinion il a bien fait Sadio Mané il n'a pas bien fait yéen a koy def King West la woon ak yéen gars yi wasalaam. Vous, vous pouvez